Sénégal at active.com gëjë gis sa maam bu mu tax bu ñu na sax lay bañ nga war ka mëna gëm ndax jikko ak borom melé kaddu yi nga xamanteni mom la ki di Abdoulaye Wade yëkëti di ay kaddu yu irresponsable sama dom rek bu dul mom du keneen doyna war mi gi da nga war xamni nak aduna rawatina li di Sénégal jamm lañu xam jamm lañu bëgg te jamm ci lañuy dox xana gor gi da ngay fatini conseil constitutionnel bi nga xamante ni moom moo daganaloon sa e mandat même conseil constitutionnel bu mom mo lankal sa dom candidature xana rek ñu war si jàngatee ku yebo boy leble lebalee lu baax ndax lu way leble rek mom lañu lay fay mak bu buur la nak bu mu tax nga bëgg jël sa bop def ko demi jeuf aduna nak bu ñu naan mag matna ba ci rew mag bi wote jàmm mag bi dox jàmm mag bi yere pousom di ñaw di rataxal diggante yi bobu mag lañu soxla ci mim rew parole de sage yëfu garmi waye taxaw rek sama dom mo fi gën sama dom mo gën ci dom yi sama dom mo gën ci sénégalais yi sama dom bu bokul élection du am ci mim rew ay waaye gorgi gi té nga yewu nak wala ab nax dalaa dikkel ala rek dañay lay ni mom sénégal mom benn bop la kenn mënu ko xar ñaar kon nak mu la yebol xooli beneen di ñaan yalla rek sénégalais yi le 24 février février ñu jóg ci jàmm dem tànn ku leen neex ñu votel ko lépp rek ndam lu Sénégal des ndax ay doomu Sénégal ko seq di leen ñaanal jàmm li la réew mi laaj waaye taxaw rek ne sama doom dinaa ko forcer Sénégalais yi mu leen neex wala mu leen naqari forcer nga Sénégalais yi buux nga ko waa Ndakaaru ngir jël mairie Ndakaaru Sénégalais yi ne la àla accu nga ëlbatiku jox cinq ministères Sénégalais yi mënuñu ci dara waaye nag góor gi jàppal ni da ngaa laaj daj dëpp bi taxaw nan Kula sama baye waaye fi mom le contraire lañu ñu gis est-ce que bii doom mat na njiit gars yi damay laaj dongo ko xam wax ma. senegal actu